Info 7 TV ñu ngi leen di jaajëfal ci topp gi ñuy topp fii ci Info 7 ci naafileeg bés bi téere Serigne Souhaïbou Mbacké guddi tey gii di juróom benneel bi Serigne bi nee na dañ cey julli ñaari rakka rakka bu si nekk nga jàng ca Fatiha benn yoon teg ca xul wallaahu ahad allahu ak ñaar Serigne bi nee na de julli googu ku julli mel na nga ku julli junni rakka ca maqaamaat Ibrahima waaye mel na itam ku julli junni rakka ca jàkkay Màkka ja waaye itam mel nga ne ku saraxe junni dërëm waaye itam mel nga ne ku leel junni ñu xiifoon te it boo amee aajo de boo ko ñaanee yàlla suñu borom dina la ko fajal mais nga itam ku jox xeetu xam Muhammad yëpp ñu lekk ba suur kon nag loolu mooy ngëneelu bis bi di leen ñaax rek ngeen wéy di abonné te ñuy topp fii ci M Fassie TV ngir lépp luñ mën a dugal rek ngeen mën ko am bu leen fàtte nag di bës kolos bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ramadan Ramadan laytaka mbëggeel mu ngi fu ne jàmm ngelaw li